sëñ bi ma ñëw naa fi tey teew fi am mbégte lool ci teewaay bi teewal fi njiital réew mi ginnaaw bi ma la jottalee nuyoom maa ngi nuyu njabootul cheikh al islam gi yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di bis boo xam ne bis bu am wàccuwaay la bis bu am njëriñ la ci réew mi président bi mu ngi di insister bi wax la bi mu fi ñëwé di waxon na euh cofeel gi ma am ci kër gi mu nekk cofeel gu yag lool mu ci wat di ma wax ma waxat len ko sëriñ bi président de la république mu ngi rafetlu bu baax sa taxaway ci dox jam ci réew mi ak ci bitim réew ni mu la ko waxe woon bi mu fi ñëwee cofeelam ci kër gi lu yàgg la waaye noonu la ko amee cofeel gu mel noonu noonu la ko amee ci kilifa diina yëpp moo tax muy woo waa réew mi ñëpp di wormal nit ñëpp ci seen ngëm-ngëm ndax loolu mooy indi jàmm ci société bi sëriñ bi président la république mu ngi yëgal kër diina yi yëpp yéene gu rëy gi nga xam ni moom ak état bi am nañ ko ci seen seen seen lëkkalante ak seen euh, partenariat ak kër diine yi ba nga xam ne lépp lu ñu sumb ñu jàppale leen ci ci ni mu gën a rafete moo tax muy dellu di wax ne dina bàyyi xel bu baax ci relation gi nga xam ne moo war a dox diggante état bi ak kër diine yi sëñ bi président de la république mu ngi sàkku tamit nga ñaanal réew mi suñu borom def fi jàmm ak dal ak naataange mu ngi sakku nga ñaanal ko ba yéene bi muy am ci réew mi ak yaakaar gi Sénégalais yi am ci moom mu am kattanu mottaliko ko. ministre ñu ngi lay nuyu bu baax yaag délégation bu am solo bi nga ànd ak ak le gouverneur région. ci turi alxalifa cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass ak ci turi kilifa yi nga xam ne ñi ngi teew feggoog ànd di la tatagal ci sa teewaay ci bés bi nga xam amuñ bés bu ko gën a màgg ci lislaam muy bés bi nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa ci la yàlla indi mu nekk leer nekk xettali pour mboolem l'humanité yërmande la pour nit ñi création yépp yërmande la pour ñeexal ñooñu ñëpp bu ñuy taxawal bés boobu ci barab bi président de la république xam barab bi ban dayoo la am waaye xam xew-xew boobu ban dayoo la am bañ koy tàmbalee waaj toog nañoo yow nga jël sa disposition ñi nga xam ne ñëpp am nañ war nañoo am taxawaay ci bés boobu nga sant leen ñi taxaw ci seen kemtalaayu kàttan lépp ñi ngi koy gërëm ci taxawaayam di leen gërëm membre du gouvernement yëpp ñi nga xam ne ñoo ànd di liggéey ak moom rawatina ndaw yi toxal senegal jëlee ko ci jéegu yiñ ko fekk yóbbu ko ci jéegu yoo xam ne nii mooy gën a kawe Sénégal goo xam ne dafay am jàmm Sénégal goo xam ne nii ku feebar faju Sénégal goo xam ne dafay am tolérance ndax li nga junj léegi ci sa discours soxla nañ ko réew mi waaye ñu ngi lay xamal sa réeréewoo ko ndax ci sa biir discours li nga wax ci sëriñ bi ci taxawaayam ci biir Afrique ba taxawaayam ci Saudi Arabie nga xam ne continuité la taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la bàyyam Mawlana Cheikh Ibrahim taxawoon